et là j'attire attention du président de la République son excellence je vais lui donner un conseil mhm. man su ma doon moom man xam nga chef de parti la mhm. su ma sañoon élection législative nekk suba ma jël ay maréew yóbbu leen ci assemblée nationale bi mais dama koy xelal pour respecter euh, stabilité wu Sénégal mhm. député yi fi nekk Diomaye fay il faut mu waxtaan ak ñoom négocier ak ñoom xool nu mu leen nu mu leen jàppale ba ñu votel ko ay luwaam mu bañ tas assemblée nationale bi mu gën a toog ba nguuram gën a dëgër tas assemblée nationale bi waaw danger bi mooy damaa xam ni bis bu yàlla dogalee mu tas ko léegi ba Ousmane Sonko ànd ak i ñoñom moom mooy am Ousmane Sonko mooy am majorité assemblée nationale te Sénégal dañ koy changer dinañ ko tuddee Sonko City Land boo mooy tuddee non loolu